sëñ bi Kunta ndànk Kunta nga wax. Uh-huh. ma nga nekk ca Meewaan. Uh-huh. Ah, maanaam ndànk Kunta maa koy doog a dégg tey lan mooy cosaan dëkk bi. waaw sëñ na Omar macha allah ndànk mooy dëkk bu nga xam ni ñi ngi ko sanc ci diine ndax ki ko sanc muy maam Cheikh Bounama Kunta bi mu koy sanc boobu mi ngi am ñaar fukki at en 1800 boobu ak léegi def na deux siècles quatre ans uh-huh. mu sancoon ko. ci atum 1800 ci jaamu yàlla bépp kunta booy dégg ci Sénégal fu mu mën a nekk moo xam Njaasaan Ndeer Guyat ba ci diwaanu Tamba beeg Ziguinchor fu mu mën a nekk rek ñu ngi bàyyi ko ci dëkk boobu Cheikh Abinaamatul Kunti nag ki ko xooloon ba mu doy ko mu yabal ko muy Cheikh Sud Muxtaar al Kunti nekkoon ci diwaanu Mauritanie mu xooloon ko ni ko demal nga àggaleel ma sa liggéeyu maam ba ca diwaanu Sénégal loolu moo ko fi indi woon di tasaare diine ak mbaax loolu rek moo doon sababu ndànk ba ay dëkk yu bari jóge ci sanc bu na ndeer guyot sérif ak yeneen dëkk yu baree bari macha allah fa tabaar dëkk sori na waaye dëkk bu am barke mais aussi dëkk bu yaatu mais dëkk bu sori enclavé wu te bu ñu waxee enclavement wax ay difficulté yan difficulté ñoo am ci localité boobu ndànk nekk na dëkk bu nga xam ni dëkk bu bari histoire la ndax néew na ci kilifa yi ci Sénégal yu fa dul ñëw macha allah fu ñu mën a nekk ci Sénégal xam nañu dëkk ba waaye dafa nekk dëkk boo xam ni baaxewuñu di fësal seen ay naqar di ñaxtu wala di def yi nit ñi di def na am mi ngi am ay jafe-jafe yu bari bi ci gën a mag tey te nga xamante ni mooy wàllu yoon ndànk tey pour nga ñëw fa dinga nga daj coono bu bari bokk na ci loolu ay jafe-jafe waaye loolu lu jafe-jafe ndànk rek loolu jafe-jafe commune Meewaan la commune la bu nga xam ne quatre-vingt-neuf villages moo ko ko composé amul benn mètre goudron bu nga xam ne am na foofu noonu benn mètre goudron ba jamono bii may wax ak yow commune bi quatre-vingt-neuf village la te benn mètre goudron am fa yoon yoon yi fa am alaaj sandiogu boo fay ñëw boo sexee sa menthe fraîche wala sa guro bu la neexee bul xàqami da ngay toog rek boo yegg si mu mokk rumbu muy ndànk ndànk ak meewaan uh-huh. ak euh, mexe bi laal dëkk boo fay dem boo sexee guro wala mante fraise bul soñu ay bëñ yow toogal rek boo yegg di yegg muy yegg ndax gërëng gërëng ku feebar ku fa jaar sa feebar yokk te am na ay usine ak entreprise yu nga xam ni ña nga ca dëkk ya waaye ba jamono bii may wax ak yow yoon yooyu lenn la ci ay jafe-jafe. ñun tey am na entreprise yu ñu naan URB ICS yooyu ñu ngi fa ak yeneen entreprise yu bari yoo xamante si liñ ñu naan euh, responsabilité sociétale defuñu ko ndax tey loolu doyu leen doyu leen benn yoon ñu régler ko tey boo jàllee ci wàllu courant bari na fa yeneen dëkk yoo xam ne am na fa dëkk bu nga xam muy Hélène Pone maa ngi leen di nuyu courant ba seen biir la jaar ak yeneen dëkk nii la ja jàllee te mënuñu ci am ñun am nañu courant waaye suñu dëkk ak Hélène ñaari kilomètre la wala sax du ko mat ñoom mënuñu koo am ak yeneeni dëkk yoo nga xamante ni yii sori nañ yii soriwuñ ñu am ay jafe-jafe ñi wàllu ndox ñi wàllu courant ñi wàllu yoon ñun nag gëmuñu doxalin boo nga xam ne wala politique boo xam ne danga naan mën naa baaxle bu keneen baax le ndànk rekk amul problème meewaan rek amul problème Sénégal moo am problème ndax tey su meewaan jagoon ma bëgg a dem màkk kulibanta te yoon amul fan laay jaar réew mi fépp moo war di baax nit ñi nekk ci dal nekk ci jàmm kon li may ñaxtul meewaan wala ma leen koy mettitlul ñoom laay mettil waa Fungale mi ak waa Ziguinchor Sénégal mais yan programme dafa war a euh, état bi ñu ngi wax ay PUDC wax yu bari yoo xam ne ñu ngi koy def ci àll bi programme yooyu dafa yegsiwul wala lan moo xew te seen diwaan boobu ku ko jiite Benno Bokk Yaakaar la bokk gëm naa ni ñooñu waroon nañ bokk ci ñiy cëru mais lan moo bloqué yenn programme ba yegsiwul foofu. ci samay information man li nga xam ni xam naa ko ci jamono bii gisuma ci commune Meewaan mhm. programme boo nga xam ne état def ko fa. jigéen ñi wala ndaw ñi di ci gis seen bopp loolu moom amul dëkk ba ma bokk ndax xam naa 89 villages yi néew na dëkk bu ma ci duggul néew na dëkk bu ma fa fanaanu te xam naa fa ay nit di fa dem waaye jigéen ñi ñi ngi ci ràbb bi ñi ngi ci di def ay robb yooyu ñuy ñaw di ko jaay waaw ñi ngi ci di sonn waaye tey lañ gën a sonn amuñu accompagnement amuñu financement xanaa kay su élection jub see ñenn ñi ñëw nax leen jël leen dugal leen ci ay oto ay njaganjaay ñu ñëw Tivaouane wala cees taxaw tàccu dem waaye lenn lu nga xam ni ci commune Mewane même hôpital bu baax sax bu nga xam ni soo feebaree di nga mën a faju na ko bëggee amu fa. day wax ni bon euh, euh, waxtaan wi am na solo waaw xam nga pareen saa yi euh, lu mel nii day baax mm-hmm. euh, yéen ñi nga xamante ne bi dëkk ngeen ci yenn euh, gox yi nga xam ne bii kat fàtte nañ leen mm-hmm. ñu mën a am accès mm-hmm. ci télé yi pour di mën a waxal seen bopp parce que réew mi moom dafa nekk réew moo xam ne gars yi du ñu xool fu problème bi nekk ñu faji ko maanaam dañuy dégg ñi gën a coow rek ñu lijjanti seen mbir ne leen noppi leen foofu la réew mi nekk te lii nga def lenn la ci loo xamante ni bi baax na ci ñëw jeebaane li nga xam ne mooy li xew ca foofa nga xamante ni fii mooy ndànk léegi man bon man am na fu ma bëggoon a dooree bon sànq expliqué nga kon euh, kunta yi nga xamante ne bi ñoo nekk ñoo nekk euh, njaasaan cosaan gi fële la daal ndànk la ki nga xam ne ni mooy Cheikh Abou Mouhamad Kunta di jaatu maam Cheikh bu naama Kunta mm-hmm. yal na yàlla taas ñu ci arkeem te muy borom njaasaan way juróom bu jigéen ak way juróom bu góor ñi ngi ndànk ñu denc ah. cheikh bu doom la ci maam cheikh bu naam waaye gisul woy juróom woy juróom bi muy génn àdduna fekk maam ak koddu tollu diggante la ni kiikat kat góor lay am su juddoo na ngeen ko tuddee sama mag cheikh bu kunte mu juddu ñu tuddee ko ko waaye cheikh bu cosaanam mooy ndànk mooy léegi nag dëkk bu mel noonu nga xamante ni bii macha allah ci wàllu diineek et cetera jafe-jafe yi nga xamante ni bi moom nga fa lim yëpp mais est-ce que am na ay om politiques yoo xamante ni bi tey yu siiw lañ yu nekk ca gox yooyu ñoo xam ne mën nga la ñoo citer seen non quoi alaaji Sanjoogu mhm. laaj nga laaj bu am solo meewaan ba muy meewaan ba léegi am na ay om politiques yoo xam ni du ma neex lool may tudd seen ay tur ndax ñun bëgg nañu waxee ci réew mi nu nga xam ni mhm. bëgguñu par parloo ndax dafa dafa nekk réew moo xam ni hmm. koo tudd sax danga nga koy may bës ndax man jàpp naa ni ña fa jaar ba meewaan dee meewaan ba léegi hmm. lañ war a def defuñu ko ndax man gis naa ci dëkk ba école yu nga xam ni day am multigrade wala benn maître di jàngal ñaar hmm. wa illaa nga gis école boo xam ni clôturé wuñ ko ay fas ak ay mbaam di fa dugg kon loolu maire ya fa jaar waxuma maire bii fi ne waaye maire yi fa jaar ba jamono bii liñ naan bëgg sa population liggéeyal leen su amoon dépassé nañ foofu amul am nañ ay homme politique yoo xam ni nekk nañ ci instance yu am solo ci Sénégal ñu jox leen ay cër hmm. waaye bu ñu ñëwee dañuy naxaat population bi hmm. di ko dundale lenn ci seen ay militant hmm. ak seen bopp waaye la ñu war a defal meewaan amul. léegi yéen en tant que ay ndaw yoo xamante ni bii defe naa ne taxawal ngeen fa ak kuréel ah boo xamante ni bii yéen kuréel gi ngeen taxawal lu ngeen jot liggéey pour dëkk ñi nga xamante ni bi taxawal ngeen fa ak kuréel lan ngeen def yéen pour dëkk ba waaw man nag bokkuma ci benn mouvement bokkuma loo wax sànq bi maanaam man ci mouvement parti politique bu président Ousmane Sonko laa bokk ah, mais yow noo ko présenté JPS JPS ah. mouvement indépendant bu nga xam ci biir Pastef la bokk comme Mojib comme Monap comme Maggi Pastef hmm. man nag maay coordonnateur JPS commune bu Mewane 89 village ki nga xamante si nii xool naa ko ci diine. ci bëgg réew mais même bu ngeen créer seen kii boobu am na loo xam ni peut-être yéen a nga commencé def ay action ci dëkk ba. waaw foofu laa bëgg a ñëw tey foofu laa foofu laa bëgg a ñëw ma maanaam dama bëgg a fësal ni. waaw man ci Pastef laa bokk bokkuma ci benn mouvement bu nga xam ni am na waaye Pastef googu ma bokk ginnaaw ba ma gisee le président Ousmane Sonko ci jaar-jaar ci discours ba mu doy ma ndax lu muy def dama gëm ni mooy yoon bu baax ba ma ànd ci ak moom. ñun activités yi nga xam ne moom lañ amal bokk na ci ay activités sociale ñun saa suñu suñu commune soxlaa ndax ñun yoruñu benn institution ñun ndomba tànk ñu alal ju leen jox mais li ñu yor ci suñu poos ñu ngi koy bokk ak ñoom surtout nag ñun li ñu gëm surtout ci wàllu environnement ñun dañ ko bëgg ñi may seetaan man nañ ma seede lu bëri dinaay organiser ay reboisement ay seet seetal ji ñaax nit ñi li nga xam ne nii du jar yenn alal ju bari il suffit juste nit ki ñu éveillé ko ndax nit nga saxal garab jarul nga am xaalis il suffit rek nga yeewu xam ne lii lu baax la nga nekk ci yeneen jafe-jafe moo xam ci wàllu éducation moo xam ci wàllu santé suñu amee suñu ay médicament yu ñu mën a wuti feneen may ko hôpital yi ñi ngi koy def ñoo ngi def ci wàllu sociale fi nga xam ne foofu la ñu yam ñoo éducation ñun su école di ubbi ñi ñu xam ne ni man lañ leen a jàppale ci wàllu fourniture ñu jëndal leen ko dinañ ko def donte leen suñu ay moyen yëgul fu nga xamante si ni ñun ñoo war a tabax école wala ñoo war a indi courant loolu ngeen cotiser ñun ñun amuñu no loolu nekkul suñu ay compétence loolu ci compé ci neuf compétence maire la bokk maire bi moom euh, bi ñu fa samp lan la fa defagum maire bi ñu fa sant bi ñu fa samp ni mi ngi ci mandaam bu njëkk en élection yi lañ koy door a fal mi ngi doxal bëgguma dugg trop. léegi xarab maire yi nga xam ne ñoo fa jaar te maire bi waxu mënagoo ñoo wax lu mu def lan gisuma gisuma ci benn ci maire yi fi jaar lu nga xamante si ni def nañ ko lu nga xam ni mën naa ci teg loxo mu nekk lu importance ci commune bu Meewaan ki fa nekk nii ñu ngi ko fal mi ngi nekk di doxal li mu defagum am na yenn yoo xam ne mi ngi koy jéem ti di ko def ah, waaw waaw mi ngi jéem di ko def ah, mandam mandaam jeexagul ba nga xam ni man nañ koo critiquer ah. à cent pour cent mi ngi nekk di di doxal ku ne xam na ni maire yi su ma juumul ñu ngi ci seen mii mandat di doxal mais gisaguma lu nga xam ne ni mën naa ci teg loxo ma applaudir gisaguma loo xam ni tamit mën naa ko xalab <laughs> wax dëgg yàlla avec objectivité waaw waaw loolu maandu la. sëñ Boubacar euh, dama la dégg euh, nga wax ni que euh, dafa heure bu élection jotee rek ñoom ñi nga xam ne rek mooy ñi bëgg réew ñu bëgg ñoo xam ne dañoo bëgg élection ñi bëgg réew mi daal dañuy ñëw foofu daal leen di nax dugal leen ci ay kaar dugal leen ñëw dugal leen ñëw indi leen woon wala Thiès ñu def li ñuy war a def ce que loolu jotul ngeen waaw kay ngeen dem tàccu ji léegi loolu jotul nag ngeen bàyyi loolu toog jàpp seen ñàmbur ku fa ñëw ngeen yuuxoo ko. laaj nga laaj bu am solo ñun loolu moo ñu gën a yokk tax ñu dugg ci politique ndax ginnaaw bi ñu jàngee ci daara ji ba pare jaar nañ ci école xasaraan bi jàng yeewu xam ni ñii kat dañ ñëwoon di nax suñu yaay yi ak suñu papa yi ba ci ñun ñu ni nax ñu ni dañuy engagé wu dugg ci politique pour éveiller conscience yi di wax ni politique nekkul lu bon dafa am xay na ñenn ñu koy def mu salte mais politique l'art de gérer la cité loolu loolu lu baax la ñun dañ ci dugg ngir dog buumu jaam googu nga xam ni maanaam les soi-disant intellectuels yi nga xam ni bu dee bind texte bu gudd mën nañ ko làkk français bu neex mën nañ ko soñse sol costume mën nañ ko mais liñ naan aji bëgg réew ñëw sa askan jaral la sa ay privilège nga bàyyi ko ngir defaral leen nekkul ci ñoom ñun ñu ni dinañ jóg changer loolu ngir askanu Sénégal de manière général mm. waaye commune bi nga xam ni bokk nañ fa muy meewaan di 89 village jafe-jafe yi fa nekk mm-hmm. liñ ci man ci éveiller conscience ñu jàpp ci ngir meewaan am geneen xar kanam ndax jot na waaw ndax yàggatul ara yaakaar naa ñoo ngi jub ay échéances yu am solo mm-hmm. li may wax nit ñi rek ku gis ni mi ngi neex ci yow mi ngi baax demal ci continuité ku gis ni kat yow meewaan googu immigration bi li ci dee. Ah, am na kuy gis ni peut-être mi ngi neex mais mën naa gën a neex. Mm-hmm. bien sûr waaw ah, neex ak gën a neex day am. waa xam nga Alaaji ah. Sadio li tax ma wax loolu mooy. li tax ma wax loolu mooy. commune Mewane. Mm-hmm. clandestinité bi fi jàll nga xam ni ñi ciy gaañu yàlla na leen yàlla xare àjjana seen i njaboot. Mm-hmm. yal na leen yàlla jox xol muñ dafa bari man ñu ma ci xam personnellement ñu dëkk meewaan ñu ñàkk ci seen bakkan ah alaaj tànjoo mu nekk lu nga xam ne nii maanaam mm-hmm. nit ñi ñu ngi dund ay difficulté boo demee am na ci dëkk yoo xam ni soo fa duggoon da nga fii ci frontière Mauritanie la bokk wala fan mm-hmm. parce que désert bu maam yow doo xam lii dëkk la wala lu mu doon loolu jafe jot ñun ñoo koy changer suñu bopp ñu dem jëli kart di yi su élection jotee ñu voté fi nga xamante si ni ñoo woote njub woote développement woote beneen Sénégal bu bees li may wax ci continuité boobu alaaj xanjoog yaakaar naa ni man yoruma kër joxewuma dépense mm. joxe woo oh, man joxe wu ma. ah bon waaw. loolu tax waaw ah man man je suis man xale laa maa ngi eh, sant sa baab. am nga jabar wala <laughs> yàlla na fi yàgg lool <laughs> yàlla dafa ko ay xéwal yu bari maa ngi koy nuyu da passage sama sama conseil yi saa yi ñu xaw a xulóot tuuti rek man macha allah mais nekk nag ku bëgg le président Ousmane Sonko di ko ñaanal bu baax ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàgg ko li ma bëgg wax foofu mooy man yorewuma kër kër. waaye xam naa ni tey jii vie bi ni mu seeree. Mhm. bu njëkk seeree ko ah amagul jabar déedéet may <laughs> alaaj Sall du da nga war a am jabar soo ko joxe départ <laughs> mbir mi demul noonu ah, déedéet da nga war a am jabar soo ko joxe départ alaaj Sall Ndiogu ah non non du mbir maanaam maanaam man man waaw alaaj Sall Ndiogu man yoruma kër joxuma dépense mais li nga xamante si ni ah déedéet ah, sama warugar eh, maa ngi koy maa ngi koy def yow léegi da ngay xëy daal yow di xaar paa bi ah yow léegi da ngay xëy di xaar paa bi Eh, joxe mbir yow daal nga ñëw rek. nga toog lekk lu la neex. alaaj Sami man ku la wax man su ma toogee ba ba mu yàgg du ma am nu ma. déet yaa joxe woo dépense di waxee di joxe waaye man sama papa xam na ma xam. xam na ma xam ma àggale foofu tooti lu ma bëgg a wax ci continuité boobu mooy. Uh-huh. ku ne xam na ni vie bi cher na lool. Mm-hmm. ceeb diwlin mm-hmm. jën. lu mu mën a doon courant ndox ku ne xam na ni Sénégal gii bu jaaroon yoo yoon ñuy bay te mën na fi nekk ndax ñun suñ allié instant bi boo demee àll baa nga ni ya yàmbalan kenn ayul maam dëkk bi bu ñu jëloon ay jiital ko élevage suñu géej gi ñu am ñu jëjalaat ko teg ko ci loxo Sénégalais yi mu jaar fi mu war a jaar yaakaar naa dund bi du seeree ni mu seere ba nga xam ne tey borom kër yi sonn nañ lool ku bëgg continuité boobu nag demal nga voté fi nga xam ni mooy continuité bi boobaa. voilà mais Boubacar danaa dégg léegi ni say kàddu nga ne école yi am na école yoo xam ni ay euh, fas lu ne fay jaar mais bu vote jotee fan ngeen di voté yéen. waaw xam nga ku amul la la gënal am. dafa sës. Mm-hmm. bu njëkk sax ci histoire suñu mag ñi dañuy jël ci penc mi rek ñu toog voté. ah d'accord donc maanaam àdduna moom. waa ci urne bi lañ ko daan. defee nit ñi dinañ dugg ci classe yi daal di vote loolu moom ku amul la la gënal. mais yow yaa ngi bokk Modap ah. ngeen nekk ay euh, ñoo xam ne ci këru diine yi ngeen bokk. Mhm. Euh, maanaam ñu seetlu ni Pastef moom bari la ngeen ci démb rek ñu ngi amal ndaje Modap pour waajal campagne beeg yooyu euh, maanaam soobu gi nitu diine yi soobu léegi ci politique bi. pour yow lan moo ko indi te bu njëkk dañ daan taxaw rek. déglu mais bii dañoo impliqué wu fees wane ko dëggal seen bopp am engagement boo xam ne sax jural na ñenn ñi ñu dugg ci biir kaso pour yow lan moo yee ci ñoom. macha allah question boobu tam nekk na lu am solo li tax ñun ñi nga xam ni dañuy wax doomu soxna ñu engagé wu dugg tey ci politique man jàpp naa ni bu yàgg la woon ndax politique jaamu yàlla la suñ borom bu la waxee ni. kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi maam kenn ku ci nekk ci ñi nga jiite ab sàmm nga ci ñoom keroog bis dinañ la laaj ñoo sàmme woon ñu ni ab sëriñkat moom la taalibe di fekki mboo leen di wax mboo leen di digal waa kooku alaaj sànjoogu bu nee man ki ñuy fal war koo jox suñu éducation suñu sante suñu sécurité suñu suñu léppi dëkk ñu war ko ko jox ñun doomu soxna yi buñ nee ah ñii kat bu gàmmu jotee wala màggal jotee nañ ñëw jox nañ dem ñii daal ñii nañ leen bàyyi ñu nekk ne boobaa dañuy nekk ay responsable nit du ñàkk a far dangay far fi dëgg nekk maam Abdou Aziz Sy Dabakh yàlla na yàlla xare ko àjjana taas ñu ci arkeem ak ñu mel ni moom ñu mel ni sëñ Abdou Lahat ñu mel ni maam Sidi Lamine Kunta ak yeneen mag yu nga xam ne ñooñu bu jamono masaana toll fii ba taalibe bi nga xam ne yow kilo la wóolu ci ëllëgam kon wóolu na la tey suñ masaan dem ba jaaxle ñoom dañuy génn ñu wax ak ñoom buñ masaan a ñëw ci gàmmu yi wala ci màggal yi dañ leen di wax ni ci seen àdduna bi ñuy dund ñu jox leen ci ay tegtal yu wóor maanaam doomu daara bi wala doomu soxna bi warul bàyyi politicien bi rek muy doxal ndax moom li ñu koy àttee politiciens yooyu ñoo koy wote ca assemblée ba donc moom bu jëlee loolu mu bàyyi waale mu bàyyi leen ko ëllëg si biir moom yàlla da koy laaj te nag ñun sëriñ si responsabilité bu rëy lañu am responsabilité bu rëy rëy moom la am nit ku farul amut ñaari ginaar sax bu ñu doon xeex fii sa xool di dina xool kenn ki nga faral ku ne ku wax faruma rek déedéet da nga naan man sama far du ma ko fësal ndax lii la ak lii loolu moom d'accord nañ am na ñu ko commencé di di di fësal fa la ab sëriñ di far ma ne am na yenn sëriñ yu nga xamante ne ni lu yàggul dara gis nañ ñu ne sama taalibe yi kat man diw mi laa bëgg ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen àndal ngeen boteel bien sûr te taalibe yi du ñëpp ñu fi nga joxoñ rek fa la ñuy fa la ñuy dem est que tamit sëriñ war na doxalee noonu. waaw ndax sëriñ bi ci boppam moom dafa war a am choix xam nga ñun ñoo am problème sëriñ bi warul joxe fii parce que man. mais sëriñ bu opposition pouvoir ñëpp di ko wutal si est-ce que kooku tamit war naa fésal ne ànd leen ak diw déet alaaj Fadio hmm. xalif généraux waaw wala kilifa bu yegg ci yenn yooyu nga xam ni kenn ku ne mooy ñëw ci yow moom laa la dox ma ni la hmm. man nga far mais sa far gi bul ko fësal hmm. ndax ñi ñëw ci yow kenn ku ci nekk ak ay bëgg-bëggam soo fësalee fi nga far dëgg di nga mettre kenn ki mal à l'aise waaye da ngay far ci dëgg xam nga nit mën nga bañ a déclaré wu bokk fenn waaye nga def discours de responsabilité bu jotee mm. discours de responsabilité ndax li jaar ci réew mi ci ay jafe-jafe mm. ndax Sénégal war nañu toog juróomi nit wala kenn nit ñàkk bakkanam ci lu dul yoon te duñu dégg ay voix officielle ñu wax ba nit ñi yëg ni wax nañ mm. man dey bu ma yeggoon ci yenn responsabilité yi bis bu lu jaaduwul amee surtout bakkan bu rot dinaa wax ba ñépp xam ni wax naa ndax bakkan dafa ko yow man yow man léegi yow yow booy nga <laughs> <laughs> ah parce que parce que kii euh, li muy wax nii macha allah wax dëgg fa yàlla. Euh, ay wax la yoo xamante ni. jàngale. Ah. <laughs> macha allah macha allah. Mm-hmm. maanaam su ma yeggoon foofu mm-hmm. ndax. bakkan bu dee loolu loolu yonent bi nee na sallallahu alayhi bakkan bu dee maam nit nit ku rey kenn nit mel na ni rey na àdduna waaye Sénégal dañuy toog ñu gis loo xam ni xam nañ ni ñii ñoo rey lii am na te suñu sëriñ Cheikh Matar Kunte dafa am benn xadis boo xam ne daf ko firi ci firin bu am solo mooy bi ñuy wax naa nit su gisee lu ko naqari mhm. na ko wax wala mu wax ko wala mu dindi ko moom mu leeral ko mu ni ki nga xam ni moo am responsabilité dindi ko ci loxo mooy borom doole ji masalan yaa ngi ci dëkk bi yor nga koom wala war nga am nga dayo bi wala nga am ñoo jiite kooku sa responsabilité yow yaa war a dindi ñu ni ko ku war a wax mu ni ki nga xam ni borom xam-xam la moom xam-xam la am kooku moom rek moo war a wax ñi ci des dañu war war ñu ci wax kooku moom la wax ji war ki nga xamante si nii nag moom daf ko war a métti li mooy ñin ñi nga xam ne amuñu kartan yoruñu doole mënuñoo def mënuñoo di da koy métti lu ci sa xol te yaakaar naa ni réew mi toll na foo xam ne am nañu waroon wax war nañu wax am nañu waroon a dindi war nañu dindi. pourtant am nañu wax te peut-être leen déggalul rek booy wax te duñ la déglu duñu jëfee. <laughs> man de jàpp naa ne. ñu war a wax xaaral kan moo war a wax te waxul. dama ne am na ñu taxaw ne peut-être ñoom ñi ngi wax ci suuf ñi ñuy waxal peut-être ñoom ñoo leen déggul. ñooñu la ñi ngi wax ci ñi ngi wax ci suuf ak ñi ngi wax ñenn ku toog ci kaw di wax ci suuf. <laughs> nga ne ku toog ci kaw di wax ci suuf. Mm-hmm. <laughs> toog ci kaw di wax ci suuf ndax duñ la dégg da ngay wax ci kaw yaa ngi ci eh, kaw da ngay wax ci kaw xam nañ li may wax xam nañ li may wax Omar duñ la dégg Omar wala yaa ngi ci kaw di wax ci suuf kenn du la dégg kenn du la dégg kenn du la dégg kenn du la dégg wax nga dëgg de mais li may wax moom xam na ko yéen ñi toog xam ngeen ah, déedéet kii li mu wax lu leer la lu leer la ku toog ci kaw doo wax ci suuf waaw très bien lay si Boubacar kontaan nañ ci kaw ray ngunda siidi kon maanaam kandaa yi bari nañ fi deseen sax ay kandaa yoo xam ne mhm. ñoom da da maanaam idéologie daara li ñuy jéem a prôné ay sëriñ bu bëgg yooyu pourquoi yéen ngeen jox bokk Sonko yaakaar ni yéen euh, doomu soxna yi ak waa daara mun na am solution seeni mbir pourquoi ngeen jox bopp li tax ñu tànn président Sonko benn man personnellement ak li ëpp ci ñi may waxal ci jikko ak ci jaar-jaar moo tax ndax amul kenn moo xam doomu daara yi nekk candidat ak ñi ko nekkul ci candidat yi gisuma ci ku ci taxaw ni mankat su fekkee xamal nañ ma alal ju ma sàcc nañ ko déclaré moom rek laa dégg mu wax benn waaw waaw bu après loolu dinañ si ñëw mais moom rek moo ko wax hmm. moom rek it laa ci gis ci wàllu diine donte ñi ci des ñëpp ñu ngi ci macha allah ñoom ñëpp candidat yëpp ak ñeneen ñëpp ku nekk sa diine doy na ma mais président Ousmane Sonko naw naa ko ci wàllu comportement ci diine mu nekk nit koo xam ne loxoom seet na macha la loolu tatax na ñun ñu wóolu ko tànn ko ndax soo dégluwoon discours am rek déedéet mais da ngay xool jaar-jaaram ci lu ne ku liggéey impôt et demande quinze ans nga génn ni man awma sax ñaari kër benn kër nga am sa compte bancaire yi li ci nekk matul sax un million maanaam nga set wicc sàccoo alalu nit ñi waaye kooku bu ñu dee tànn ñi njiitum réew nañ ko wóolu donte leen ni tey def nañ ay galgal yu nga xam ni fexe nañ ba président Ousmane ko en personne du nekk ci urne yi ñu di ko wateel di gis photoom waaye ki ñu fay gis mooy takk ndeeram ci zahir ak ci baatin ndax Basiiru mooy mbégte mooy mbégte ci boppam sax Basiir mbégte la ba pare Basiir moom mbégte la ba pare mook président Ousmane ñu bokk ay jaar-jaar te ñu bari dañuy laaj ndaxam man na porté projet bi ndaxam yegg na fa ak yooyu man li ma ci tontu ci lu gàtt mooy Sonko daf ko tàggat ommat ko ba mu yegg fu mu yegg gis nga nit ñaari nit bu ñuy dox kii xam fu mu jëm kii xamul fu ñu jëm kii xam fu mu jëm mooy njëkk a yegg <laughs> ndax tey su ma doon ñëw kër alaaji Tandioogu <laughs> te ma xamoon ko su ma duggee ci oto bi damay toog aisément affaire bi day dama yegg rek ma wàcc waaye su ma xamul dinaa ko juróom fukki yoon ak juróom jaaram ci jaaram ci jaaram ci waaye Sonko tette nañu ñun ak jomaay ak keneen ak moo xam Biram Souleye la moo xam Abbas Fall kum ci doon tàggat na la ba nga xam ni xam nga fii ngay déparé fii ngay yem ñu bàyyi la nga di la gërëm bu la moom vraiment laaj ko ban message ngay xanaa message bi may woote mooy sama mbokku jeunes fu ñu mën a nekk ci diaspora bi ak ci réew mi ñoo xam ne réew mi ñoo ko bokk élection yi bu ñëwee lu ne dinañ ko dégg lu ne dina ci xew waaye ñu xam ne réew mi buñ ko yàqee suñu réew lañ yàq suñ ko defaree suñu réew lañ defar koo xam ne amoo passeport diplomatique mënoo dem fenn bu réew mi tàkkee nga ñàkk kon maa ngi leen di ñaax ñu ànd dal ànd ak teey su élection yi ñëwee kenn ku ci nekk ka nga àndal la am solo mooy nga dem jëli sa carte d'identité nga voteel ko maa ngi ñaan na ngeen may ma rek ma jàllale benn bis boo xam ne sama bisub maam la waaw Serigne Aline Sidi Mokhtar Kunte le 3 mars bii nii le trois mars incha allah ma leen ci invité di ci ah, invité sénégal yépp di ci invité waa Meewaan à Ndankounté le 30 le 3 mars à Ndankounté Ndank à 7 kilomètres de Ngaye Mekhe Serigne Aline Sidi Mokhtar Kounté ñu koy defar bis bu màgg di anniversaire am ñu ci woo mbokki julli yëpp di ñaan ñu yegg ci ak jàmm di sant nag sama taalibe bi nga xam ni daa yëg ni damay ñëw rek ñu koy wax Chikori Mbaye ca ngaay mexe mu daan ma ah sëñ bi xaar rek ma barkeelu ci lii daan may defal lii muy boobu ci ngaay mexe macha allah si Kori Mbaye macha allah waaw di nuyu waa ngaay mexe mexe village waa mm. ndànk waa mm. meewaan di sant ak gërëm ci kontaan bu baax a baax ci émission bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi mm. wa barakaatu. macha xam ne sànq daa am ku ma invité mu ne réew mi dina neex dina soppeeku. incha allah waaye gisee ay ndaw. waaw lii ah, maanaam ñu politiciens yi nan yow. bu ñu yeewul problème la ñuy am. parce que ñi nar a jiite ji ëllëg. Mhm. ñooñu da leen di jiite ci fulaak fayda ak jub. dëgg la boo ko deful doo ko yàgg. Mhm. kon di la gërëm bu baax di la sant di la ñaanal bu baree nga ni sëñ mu ñaanal ñu. Ah, déplacement bi sori na mais jar na ko nag. Mhm, ndax waxtaan bi neex na loolu. Ah. di la gërëm bu baax. Ah. di annoncé waa leen ni rek ngoon. Benno Bokk Yaakaar lañu invité ci vingt une heure focus uh-huh. uh, match uh, waaw ci solution TV waxtaan bu neex nag uh, waaw ci waa Benno yi Ziguinchor yi wax nañ ci Ousmane Sonko wax ci Amadou Ba ñëpp kon uh-huh. incha allah <laughs> neex na neex na <laughs> ok di nuyu sëriñ Boubacar Euh, Kunta yow sama borom kër bu Boubacar la tudd ah, moo tax xam nga rek macha allah ma lay neexal nii Kunta <laughs> Sidi nga nuyul ma nag waa nga nuyul ma nag waa meewaan mhm. nuyu ma waa dànk Kunta Kunta Sidi di di leen ñaanal jàmm li ngeen ci bëgg ci xéewal yàlla mën na ko yàlla ngeen ko yàlla defal foofu ci barke Seydina Mouhamed nga nuyu nag waa Kunta Kunta Kunta yi bëree bëri ak ñoom ak macha allah dégg naa sama loxo ci ñoom